jërë jëf uh, mbokku internet yi seetaan uh, Bambey TV mbokk ñu leen di nuyu baaxa baax di rafetlu encore une fois ànd bi ak aussi safo bi ngeen safo Bambey TV tey nag ñu ngi fii ci stade municipal Bambey li ñu fi indi yaakaar naa ne xam ngeen ko muy final zonal ay final zonal lay wax parce que actuellement ñu ngi si final uh, cadets yi suba incha allah rabi ñu jëm si final senior bi actuellement première heure bi jeex na ñu ngi si jëm si deuxième heure bi dinañ si ñëw léegi mais ñaar ñi ma taxaw ak.

voilà Bamba TV daal dañuy plaat loolu ay doo leen direct affaire yi nag <laughs> bu ma deful direct sax après. Aja Matar mu nga wax. Aja c'est bon. Facebook wala Bambey wala Facebook bi wala YouTube YouTube YouTube jërë ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi xel Bambey TV mbokk yi ñu leen di nuyu baax di rafetlu encore une fois qualité bi ak safo ak ànd bi ne ànd ak euh, Bambey TV tey jii mbokk yi ñu ngi fii ci stade municipal bu Bambey li ñu fi indi mooy ay final zonal parce que actuellement may wax yéen ni final cadette bi mu ngi daw suba ñu jëm si final junior senior si ñëw si léegi si ñaari final yooyu cadette bi ak aussi bu suba bi bu senior bi mais dama taxaw ak ñaari nit ñuy président zone yi nek fi ci biir commune bu Bambey muy les deux zones muy zone 1 ak zone 1B ñu lëkkaloo nak ñu boole final yi mu doon lu rafet lool vraiment loolu buñ ko gisee la xamal ne ñaari président yi ak ñaari zones yi déggoo nañ ànd nañ moo tax ñu mën leen a boole tey le parrain aussi ma ma ma lay Fall ñu ngi koy gërëm baax di ko remercier au passage jël ñëw parrainé ñaari final yi loolu aussi yombul tey nak ñu bëgg a waxtaan ak ñaari président zone yi parce que mbir mi door na démarré na tey muy les final cadet suba ñu jëm si les final junior euh, junior senior ñu ngi nii ak le président Sila Diop ak aussi le président Cheikh ñu ñëw ak euh, le président euh, Sila président Sila ñu ngi lay nuyu. waaw merci beaucoup euh, Matar maa leen di fay di nuyu di profiter ci occasion vraiment di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk en direct Bambey TV. waaw président ñu ngi jëm si ay final journal door nañ ko tey muy lay kare suba ñu jëm ci senior daga wàccaay bi ak mbir mi est-ce que yomb na ba mbir mi nii demee nii nii tey tey tey. merci beaucoup question vraiment importante. Euh, dans la mesure où pratique euh, pratiquement c'est saison parce que biñ commencé ay de poule jóge match de poule dem quart de finale quart de finale dem demi finale ku xam pratiquement dafa euh, dafa na ay parce que ay ay bu potentiel sa équipe donc bu ñu ko coordonné ba donc vraiment je peux dire que ça ça ça a été pas facile mais je profite pour l'occasion vraiment de remercier toute la jeunesse euh, sportive de Bambey parce que souvent par exemple dina am ay mais après esprit de grandeur day ñëw vraiment ñu mën a accéder ci benn bàyyi palier accès ci beneen donc loolu moo waral nous ñu war a euh, jëm ci ji tey muy finalu cadet yi suba muy finalu senior quoi euh, ci final bi ci wax mënuñ ci wax sans pour autant d'abord premièrement remercier sama naataango président Cheikh parce que euh, zone bu nek xamnañ autonome de telle sorte que suñ accordons accordé suñu ki parce que je pense que ni yakarna comprendre nañ que le sport donc li la quoi day fédérer mais pas du pas muy diviser donc comprendre lool mo tay ñu situation selon su aussi may remercier l'ensemble des membres de la zone 1B comme aussi l'ensemble des membres de la zone qui parce que travail bi tamit metti won nak mais ku nek da nga assumer ak responsabilité moo tax vraiment ku ñu egsi vraiment consécration bi nga xamante fa lañ jëm muy final bi quoi. légui lu lol weesoo nak mënu mo bay wax sans pour autant remercier le parrain parce que ku xam final xam ne dafa 10. pratiquement il faut nga bëgg sport bëgg sa dëkk bëgg sa gox pour man ci investir yenn affaire. yi. Euh, alhamdoulillah vraiment depuis ñun bon xawma ma parrain ban zone moo koy mais ñun aussi à Bambey joyu ñuko quoi à cause de du du du père euh, ma Fall parce que vraiment, il n'a, aménagé aucun effort. Il n'a aménagé aucun effort vraiment pour rendre la jeunesse heureuse, euh, pour rendre la fête belle. De telle sorte que nous, vraiment, au nom de, la jeunesse sportive, vraiment, nous pouvons remercier. Quoi. Merci. Merci, Président Silla. Je Président Cheikh. Président Cheikh, vous avez aller d'abord. Alors, salam alaikum, euh, beaucoup sportif Bambay. Salam alaikum, Internet Bambay TV.

souvent yaa ngi dégg ñu naan la diviser ñi jaar ni ñi jaar ni mais tay bu ñu toogee ñaari zone yëpp dajalo nek ben ça montre que Bambey est une jeunesse saine aussi vraiment yëg-yëg bima am moy ça dépasse vraiment lo xamné ni man na ko wax vraiment mënuma ko sax ki en tout cas content na trop di ñaan yalla aussi yu melni de pareille euh, euh, situation muy gëndi am di gëndi am ñuy joxe exemple yo xamné ni suñu génération future yi nga xamné ñom ñoy ñew ñu xamné une jeunesse doit être unie une jeunesse doit être saine une jeunesse doit être soudée

C'est aussi man nga boucler cette saison di xaar parrain parrain aussi en fonction de sa disponibilité calendrier aussi s'il là calé ben date bo xam ne mom mokay arranger pour ñu def finale mais même cette fois-ci le parrain nous a laissé libre ñun ñun ñoo choisir suñu date mu fekk suñu ci date bob lool aussi dañ ko ci remercier aussi. mu ñaar ci président Sila, président Sila tay mo loon wax saison bi tay mu ngi jeex tir à sa fin tay mo loon wax bilan boy tiré depuis début jusqu'à présent ba joué ci finale tay loy wax. Wow, merci Matar le bilan bi ñuy tiré est euh, vraiment un bilan positif parce que tey euh, am na dëkk yoo bëri yoo xamante pratiquement suñu naataango ñoo fa nekk mais nawetaan du egg du parce que ay ay ay problème problèmes. mais bu ñun vraiment quel que soit les différents quel que soit les malentendus suñu nous dépassons ba war a tey egg si nga xamante parce que l'objectif, bi ce la woon quoi ñun objectif bi am mooy comment CNP la quoi champion national populaire nga xam da nga commencé ci A terminé ko Z donc je pense que ne tey ñu ngi ci terminaison bi donc vraiment ca malgré tout lu ci mën di am mooy ñun commencé nañu mission bi ñu jox ñu ngi koy ñu ngi ko ñu calendrier bi ñu jox satisfaire nañ ko egg nañ ca cappaandaw ga donc kon loolu vraiment sa kii bilan positif laay wax quoi merci beaucoup. président Cheikh yow bilan parce que cette zone bi xawoon na yëngu ren. non mais bilan bi c'est un bilan positif ah yëngu moom mënul ñàkk si nawetaan ku ne nawetaan moom ne ay yëngu-yëngu. mais li si am solo mooy lu mu mën di yëngu-yëngu rek bu ñu eggee si cappaandaw ba ñëpp dinañ retrouver wu quoi l' li si am solo mooy que droit soit dit lu mu mënti doon nañuy jiital dëgg nañuy teg dëgg te je pense a été le il faut qu'il y ait dans un mouvement nawetaan mënul ñàkk parce que équipe euh, ku si waajal sa bopp yaa xam nooy waajal sa bopp sa côté donc boo ñëwee aussi keneen ki ngay dajal aussi moom li ngay ben la mëna doon ben jeunesse la mëna doon tay li ko waraloon lu muy yag gudd yëngu yoy yop tay mën nañu wax ne mi ngi suñu ginaaw li waraloon yëngu yu tamit ils se sont retrouvés lepp nak euh, si problème ay interprétation ay ni la gisee ni la gisee mënul ñak ci nawetaan li ci am solo dal moy def nañ ko sans pour autant que violence am fi té lool aussi c'est à saluer tay ji Matar bu fi coow amone wala bu fi violence amone sama paré da ngay yoy amé fa faj wala man ma lay faj donc mënul ñak ci nawetaan mais aussi ku ci nek na xam raison garder xam ne c'est pour un moment ñiy pratiquer nawetaan ñëpp ñii ay élèves lañ ñii ay lañ ñii ay lañ donc nekk loo xam ne ni moom mooy seen euh, gagne-pain dañ fi nekk pour jàppale suñuy rakk la ñuy jàppale comme ni ñu mag doon defee ñun aussi noonu lañ ko defee jàppale suñuy rakk mais yëngu-yëngu moom mënta ñàkk l'essentiel mooy bu yëngu-yëngu weesoo rek après la tempête rek na climat apaisé ñëwaat quoi loolu am solo. loolu doon am solo président Cheikh Dieye ak président Sylla donc ñuy jeexalee euh, ak euh, li nga xam ne bii mooy kaddu yi sensibilisation certainement parce que ñu ngi si final cadette bi vraiment ça se déroule normalement amul benn coow amul benn incident loolu la ñuy yaakaar aussi suba mu am lu am la même chose ban kaddu ngeen di ñaax aussi ñi wara a suba ak ñi nga xam ne ñu ngi actuellement. waaw foofu moom euh, am solo dans la mesure où parce que ku wax euh, final wax xëccoo la jongante la ca euh, yaakaar ne comme ex dem nañ ba ex ba ci cappaandaw ga buñ final rek fête la quoi donc kon instant dañuy commencer dañuy commencé d'abord ci ay remerciements di remercier ñëpp ñi nga xamné ñi ngi rodé autour du mouvement nawetaan muy les ASC les supporters les partenaires les joueurs les dirigeants donc ñom ñëpp ñu ngi leen di remercier ak surtout autorité nga xamné ne ñoo parce que nawetaan ñëpp ñoo ci japp donc ñoo ñëpp dañ leen di remercier buñ leen remercier ba paré nak mu ñu profito fi di invité ñëpp vraiment ñu suba ñu aborder journée yi ak sérénité ak euh, surtout li nga xamante moy euh, zéro violence parce que ak lu métti il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu donc lu mu mën nous métti rek ñu jëlee ko ak philosophie lu mu ci mën a mel lu mu ci mën di rek ñu ko ak philosophie vraiment di profiter occasion bi di profiter <laughs> di profiter occasion bi <laughs> di di <laughs> di profiter occasion vraiment di lancer vraiment que zéro zéro zéro zéro violence quoi Euh, président chef donc message bi lan la pour euh, final bi oui, je comme nous sommes dans une structure bien organisée avant tout remercier aussi madame euh, euh, chef de service départemental fi nga est en particulier l'espoir, aussi le président de euh, au passage tous les acteurs mouvement

luñ koy wax mu def ko moom daal ñun lay déglu quoi li naan affaire bi comme on dit njabootu Kinaara moom dafa jiital xale yi topp seen ginnaaw vraiment aussi ñu ngi ko si sant di ko si gërëm aussi quoi di ko ñaanal aussi lim si jublu moo ko xam yàlla na ko koy yàlla defal quoi voilà. merci beaucoup donc mu ngoog mu doon les deux présidents de zone de Bambey muy le président Sila Diop nekk zone 1B ak le président Cheikh Dieye nekk zone 1 ñu lëkkaloo nag euh, vraiment collaboration bu rafet avec le même pareil avec un seul et même pareil muy Mame Abdoulaye Fall wara a li nga bi euh, moy defoon fi ay jamono ren encore mu ñëwaat wat lu mel les deux zones l'olé wone la jeunesse bambéoise donc euh, ñom ñep ñoo bok ben lañ ken mënu ko xar ñaar ken mënu ko xajalé mu doon lu rafet lool ñu ngi ni ci final cadet bi deuxième heure bi ñu ngi jëm suba inshallah ci final senior yi di rappeler la nga bi moy rencontre yi am suba xam nga ne ASC Yaakaar ak ASC Entente lolou match bu neex la match bi metti lay doon final du yomb benen final bi aussi bob mom moy daj depp bi mom la gars wax moy daj depp bi diggante ic Réveil ak ic Avenir loko waral mom moy bi moy sen 3e fois ñuy tase ci saison bi Réveil ak Avenir daanaka ci biir terrain bi kenn mënut a gañ sa morom tase nañ match de poule kenn dorul match bu metti match bu neex boo xam ba tey Bambey ñu koy ciow kenn gañewul ñu wat encore quart de finale zonal quart de finale euh, phase régionale à djourbel kenn mënut a gañe si biir terrain bi tiro bi lañ mujjé Réveil gañe ko ñu wara a wat suba pour une 3e fois ci saison bi muy final ndam li nag faaw mu am fu mu jëm xaw ma nag ba xam ci biir terrain bi lay jeexee wala laa tiro bi lay jeex en tout cas ak lu si mënti am moom final moom faaw mu ndam li mu am fu mu jëm mais lu si mënti am tamit loolu lépp vraiment ñu xam ne Bambey la c'est Bambey ki gañ ñu joué ko si jàmm ak salaam fair play que le maire gañ kon di leen jox rendez-vous incha allah suba ak jàmm rek ah ambiance lan lañ mën a xaar comme suba suba. Ah, comme ambiance luñ mën a xaar. <laughs>

ticket yi entrée entrée ticket yi entrée unique 500 francs comme ni ñu defee tey cadet yi entrée 200 suba entrée unique 500 francs unique 500 francs d'accord mu ngoog suba kon unique 500 francs amul xala amul maga ah entrée unique 500 francs kon nag mu Malik, semua kameraman, cameraman jine cameraman yi ñëwul de donc <laughs> kon mu ngoog gars yi loolu mooy li nga xam ne avant première bi ñu doon def ak les deux présidents zone jëm si waajtaayu final bi ak sensibilisation bi kon di ñaan lak yàlla euh, suñu borom suba ñu yegg si jàmm ak salaam comme niñ ko ni ñu ko mayee tey si kare bi ñu ñu ngi ni si moom ci kawam ñu ngi si deuxième heure bi suba si incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen ngeen fas yéene aussi ànd ak Bambey TV lépp lu fay xew si kàttanu yàlla dina leen ko jox jërë ngeen jëf.